fii moom wax dëgg yàlla ñoo ngi sant yàlla bu baax ndax communiqué Sénégal bi fi nekk kenn yabu leen Sénégal mu ñu ko yab parce que man wax dëgg yàlla euh, am naa fi na 32 ans depuis Houphouët Boigny fekk naa nguurug Houphouët Boigny nguurug Bédié nguurug Guèye Robert nguurug Laurent Gbagbo di sant yàlla fekk nguur Alassane Ouattara kon xam naa bu baax lan mooy Yamoussoukro Sénégal yi fi nekk kenn yabu leen nangu nanoo daan seen doole am nañ fulla am nañ fayda am na jom te respecté nañ leen waaye ñun waa dëkk bi respect. gis nañ quand même relation bu euh, privilégié maanaam Côte d'Ivoire ak Sénégal euh, li ñuy wax ne ay euh, doom ndey lañ dafa mel ni boo ñëwee fii da nga koy gis dëggantaan mu mel ni communauté bi daal intégré ngeen fi amu leen fi benn jafe-jafe. waaw xam nga sénégalais comme ni ma ko waxee rek ah, bukki bu yabee gaynde ca doxin wala ca xam sénégalais xam communauté sénégalais ne fii. Euh, ku xam dëggante ne précisément entre Alassane Ouattara ak ñi euh, ko président Abdoulaye Wade jàppale woon ba yàlla dogal mu jël réew mi ku ne xam na ne Sénégal dañoo intégré fii ci Sénégal ndax d'ailleurs même li may wax dëkk bii ma nekk tey di koro Yamoussoukro Lakaima gouverneur bi fi nekk ak ki nga xam ni moo yar parti bi nga xam ne mooy parti bi fi nekk kooku waajuram Sénégal la muy Augustin caam ak Tidiane Thiam ñoom ñaar ñëpp seeni maam Sénégal la tey ji ñooy yirif Yamoussoukro ndegam nag bu ñu demee ba Yamoussoukro dëkk bi ñu nekkee ñi nga xay ñooy tuteurs yi gouverneur bi ak ki nga xay mu yor parti bi première parti fondateur di Côte d'Ivoire muy euh, la grande euh, le PDC RDA ki ki remplacé Bédié mi nga xam tey ji moo gaañu mooy Tidiane Thiam kon Sénégal ak Côte d'Ivoire li naan café au lait maanaam café au lait la ñaare boo la yëngal naan wala boo yëngal tuur <laughs> fii nag euh, Sénégal yi moom précisément moom na commerce rek ñoom commerce dong lañ xam Sénégal dafa commerce précisément itam euh, ñoom seen liggéey mu ngi jëm ci affaire bitik Sénégal yi ñoom seen lépp liggéey commerçant bitik la wax dëgg yàlla commerce bi tam amu ci problème fii daal li ma la mën a xamal mooy jëf jël la ñàkk jariñ képp ko xaye yaa ngi liggéey da am sa tiranga jëf jël la ñàkk jariñ waaw ku yaafus daal moom yaa yaafus waaye fii daal képp koo xëy nongaa liggéey ak ko mën a doon loo mën a lu tuuti tuuti incha da nga ci gis sa bopp